li ñu indi fi tey dafa am benn programme bu ñu taxawal ci ndigalu président de la république ci ndigalu monsieur le ministre Mamadou Talla ministre des collectivités territoriales de l'aménagement et du développement des territoires mu jox ñu ndigal ñu ñëw fii li mu fi def nii moom moo ne ma demal def ko ci lañ taxawal benn programme bu mag tuddee ko PRDC programme pour le renforcement de la résilience des communautés ci biir programme bi dafa am ay projet ben projet bi ci gëna am solo moo ñu fi indi tay muy le projet intégré un dara une boulangerie mobile un champ du savoir ben dara ben four ben boulangerie ak ben tolu xam-xam alors pourquoi dara nga wara tek ci wet gi boulangerie parce que boulangerie bi day permettre dara bi niko ko adjoint maire waxee légui léegi mu amay activité génératrice de revenus day permettre daara bi mu am formation day permettre daara bi mu créer emploi ñu ne au niveau de l'agence de développement local dañuy taxawal la grande initiative pour le bouclier céréalier maanaam ñaax nit ñi ñu dellu ci mbay bi nga xamante mooy ñun céréales yi ñu am mais pour coq yi du maïs lañu fiy def du mboq lañu fiy def coq yi blé lañ leen di indil blé semence blé waxtaanee nag ISRA ba pare. place bi ngeen war a def 50 hectares blé bi waa ISRA di leen ñëw dem xool ko Kër Momar Sarr la apparemment bi ñu ci waxtaanee ñoom dina fa dem ñëw xool ko ñu jox leen semence 50 hectares blé mu accompagner four bi loolu kat dafa am lu mu ñu war a wan bu fekkee mbub mi ngay sol lañ koy defaree bitim réew lay jóge dàll yi ngay sol lañ koy defar bitim réew lay jóge mais bitim réew bu tëjee buntam da ngay def yaramu neen li gëna metti moy nga am dépendance ci la ngay ne yow pour nga il faut que les gens ko rew la président de la république wax ñu taxawal programme yu mel programme dem ci goxaat corriger les distorsions et les déséquilibres territoriaux mu équité territoriale tay fouru mburu bo xam day pâtisserie day cake day pain chocolat day defar croissant mais gar nga ko doon gis biir Dakar mais tay kok fi dana mën a am pâtisserie bo xamanteni ñi ñii sant Lo ñi sant jallo ñi sant sal den ci war a mën bu ñu xëyee ba beren leneen li ci dess moy benen programme bi nga xamanteni war nañ ko fi indi mu ngi jëm ci walu xaralu yu bees yi le numérique numérique buñ ko waxe moy internet internet damay wax souvent ne escalier la bo xamanteni fepp fépp fu ne la lay yóbbu baykat bi ya nek ci naka lako internet mana a bu bayé ba nawet wacc li meuna jaay mu jaay ko ki nek ci hôpital wara faju nan lako internet meuna dimbalé bu mu meuna faju ki nga xamanteni sam kat la nan la meun def ba internet dimbalé ko ba limi sam mu meuna jemal mucc bëgg nañ jëmmal fi ben projet bu ñu ko tuddé case numérique case numérique ma ngi ci waxtaan docteur Lo waxtaan ñu ci waxtaan case numérique moy ben nek la bo xamanteni dañ koy tabax fi ci bir kokki buñ ko fi tabaxé ci biir case ba parce que boo nee case numérique case néegu ñax lañ ko jàppee numérique mooy xarala mooy mooy am aada sa cosaan nga xam ko xam lan mooy fa nga bokk mais mais aussi nga ubbeeku case bu mel noonu bu ñu ko fi tabaxee ci biir case bi dañ ci dugal histoire kokki ñi fi jaar ñëpp seen histoire nekk fa muy Touba muy Tivaouane ñu dugg ñu chargé ko stocké fa lépp li nga xam ne mooy nekk histoire réew mi parce que kokki mooy Sénégal ba pare ci wér gi nag ñu teg ay application ak ay logicielle yoo xamante mën na permettre nit ñi ñu former leen ça veut dire xale yi bu ñu duggee ci biir case bi ak sa portable mën nga dem wut benn lien dugg ci biir case bi xam sa histoire parce que nit boo xamul sa histoire mënoo def dara boo gisee xale yi léegi neex a fëkk c'est parce que dañoo taxul fu dëgër dañ leen bàyyee internet mu yar leen internet baax na mais boo bàyyee internet sa doom mu yar ko rek dana si def loo xamante ni bu ëllëgee yow da ko bëgg a génne mu teg ko donc loo moo tax ñun ñu xalaat ne ñun itam du ñu bàyyee internet kese xale yi état bi day dem dugg ci biir internet xool li mu bëgg mu dugal ko ci boppu xale yi mu def ko ci. ñoo ngi ñaan yàlla li ñu def fii tey yàlla na nekk lu barkeel pour askan bi yëpp na nekk lu barkeel pour génération yi di ñëw ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp.